ak askan bi um, I don't know ndax if you can say a or two fi fi nga fekk ci waxtaan bi ñu ngi doon waxtaan ñu ngi doon waxtaanee li nga xamante ne mooy ci uh, corruption scandal tamit buñ ñu ci ci ci lopitaan bu gën a mag bi Banjul ñaari top official si ñu ngi jiñalante affaire corruption just in 30 seconds loolu noo ko noo ko gisee uh, as a Gambian by the way New ñu dealante a very corruption um, mu just just a little bit inside of it so that everyone will understand. I think I saw it on what what what's on Gambia yesterday. Is it regarding that uh, 4.6 million mm. Dalasi? Yes. Hello. Yes, yes. Okay. Like, uh, uh, okay. All right. Well, yes. Go ahead. Go ahead. Sorry. Okay. Okay. So, That's fine. Uh, Mhm. Jump a little, little bit inside of it, but I'm understand better. Okay. yes euh, léegi xam naa ne loolu dinañ ci gën a ñëwaat insha allah pour mu ñu gën cee yàtt but just coming on to the main issue itself li tax ñu am la ci line bi mooy comme ni ma ko waxee léegi ay safaati doomi Gambien la of course ak Abdoulaye Thiam nekk Sénégalais euh, tycoon nekk businessman am nañ legal issues yi nga xamante ne lu bari xew na ci diggante bi marriage proposal ak yu mel noonu xew na ci boo seen di Aïssa dem Sénégal ñu téye ko fa ba tey ñu ñu ñu ñu ngi ko atte coow li bari na Gambien si bari di ci wax ngay toppa process bi yow tamit euh, lan ndax nga gisee mbir mi buñ ko tiyee ak euh, ndax nuñ ko jàppee sax Gambien si ñu bari jàpp ne loolu warutoon demee noonu dafa mel dañ ko setal trap te nguuri Gambie waruñoo toog di seetaan loolu. waaw xam nga euh, jërëjëf loi dafa am understand nga xam nga li moo waral euh, nit soo fonkee sa sa doomi réew Sénégal seen doomi réew hmm. understand nga seen seen seen doomi réew moom moo am problème kooku lañ doon bëgg a blackmail according to euh, whatever is going on Mm-hmm. Right. So guy, uh, ang ga guy family <laughs> um, ngan Gambia man So man mage spy on Gambia. Why guy I'm um, gamin jurisdiction fee America. Understand? Uh, obviously, di mo man yung tiye. Understand? Uh, why nekk dem naa si dëkk boo xam ne am am nañ fa jurisdiction wala ma ñëw Gambia ci boppam obviously fa nga amoon si zo'n criminal procedure code is I'm not, I'm not crime thing. I commit outside to make a Gambia, a Gambian. Eh, it's illegal, so you're in the arrest. So in this case, um, Sineke Aisha um, was blackmailing this man, and black mm. blackmail mm-hmm. is, is illegal. And I give this day who know you knew I mean, drew up for arrest and investigate. However, si nekkee ne mën nañu ko si biir investigation boobu tamit nañ koy def si yoon buñ just mel ni ah, just because ki taakul na rek affaire influence rek xaaral ñu jéem ko bankal loi bi anastaan nga so investigation boobu dañ war investigate mu gën a seet ndax lu am na na amul de dee amul dañ ko wala a bàyyi mu a gaawee waaye su nekkee am na tamit then obviously dañ war a follow uh, legal nga process bi foofu noonu te man doon Aisha right now lawyer Sénégal laay ut hmm. oh, all right léegi euh, Modou ñu bari xëj na problème buñ am mooy there's already a court case bi nga xamante ne mu ngi am fii ci Gambia euh, ñu ngi ci high court bi so Aisha jógee fii dem on trip ci Dakar mu dugg rek ci border bi ñu tiye ko so dafa mel ni lu ñu waajaloon la est loolu tamit lu waroon a am la parce que ñu bari dañu am problème bu yaa ngi wax ne affaire ok black blackmail bi am na ci accusation and all that but niñ ko jàppee ak code case baa ngee dem Gambie so at the same time beneen code case la tàmbali na foofu ci ci ci Dakar wala senegal loolu tamit euh, naka la ko nit mun a understand ne ndax lu mun a nekk la at the same time for example. waaw somewhat yes comme fi United States xam ma nekkee Washington. Euh, ma ma def wala ma cross straight line ma dem ma dem wala ma threaten it from here mhm. understand that's that's that's illegal so su ma see ba dugga foofu am nañ droit pour arrest ma pour investigate so xam nga nekk nekk lu nekk fexel la luwaa dafa so da ngaa gis ne su nekkee ne uh, yow yaa ngi dem ak dafa am doole uh, like for example Gambia right now So gisee lii some people they use luwaa bi pour pour di not nit ñi ah, yàlla ne jox opportunité bi ñu ne ku la ku la ut soo ko joxee bunta rek yaa yaa ko teg ana sànga so in this case ñoom comme ni ma ko waxee rek doom yi seen doom la nekk di blackmail mm-hmm. ah, kooku amutoon ah, jurisdiction gars amuton jurisdiction pour ñëw arrest ko from the Gambia waaye bu mu duggee seen dëkk am nañ droit like I said pour arrest ko investigate because seen doomu réew la nekk di di di di blackmail seen ndax loolu allegation boobu dëgg la la du dëgg So moving forward, after, after that, like I said, mom, they got a text on why why RSB mom This definitely legal. So the over Gambian people will understand the law. Kasi uh, ngayon Gambia, they mean eh, hamon yung law. Lim yung like, yun na you Yun, yun sing you nyo jarod dito. Kailan dem si IGP, baral ko dem na si hamon yung kunyari si yun yung law. Understand? So, they look law, um, nekul neka rek, uh, then comparel, because nyo yung tamid ako, they could be sued. Sénégal kon su ñu xamee ne lu ñu jàppee ay sani waruñ koo jàpp ñu def ay sa su paree mun naa gaay ana saaga mm-hmm. so loolu yëpp mun si so na gamit na gaay teg seen time ñu dal nga xam ne loi dafa am ko accuse noonu ah, gaay am nañ droit pour pour pour naka pour arrest ko investigate su nekkee moo ko def su dee seen loi bi foofu lu mu wax loi bi na ko teg si yoon waaw su ñëwaatee Gambia tamit boobu tamit dem case la parce que Sénégal Gambia la def defeen la mm-hmm. all So soo foo follow process bi ak comments bi ci ñenn ci Gambien si di wax you know réaction is bari but others think concerned. for example Abdullah Thiam mu nekk and at the same time eh, you know business tycoon and all that te mu nekk and then I said them for a new ko bi Gambian. Gambien ndax Then I Aïssa i am a fair trial on this case and do you feel there should not be worry about that luwaa luwaa la te bu dee Gambia la wala Sénégal fu mun mënta doon euh, ñuy atte moom dégg rek la ñuy atte soo Gambien si mun nañu feel comfortable ne case bi mun naa mun naa doon li nga xamante ne fair trial or euh, fair case for all of them. waaw boo boo mun si soo li nga def mooy euh, moo tax ma ne ay dafa war a jël lawyer sénégalais. Mm. ana ñoo xam seen système. so mun naa apply lu mel change of venue change of venue xaw ma xaw ma na Sénégal wax dëgg xaw ma la mooy seen loi bi nag waaye change of venue venue mooy soo fiilee laaj ne doo am fair trial mun nga apply mun nga file motion to change that venue ñu yóbbu ko si beneen dëkka anasa so loolu loolu yëpp mun si so if if if she has a lawyer koo xam ne am na liggéeyam te moom mu xam ñu ngi seen loi bi nag mun ngaa def loolu she could do that te loolu loolu foo dem la so then like I said so then we feel like ne you know yow do am fair trial comme nga dem even sa Gambia sax soo demee si George bi nga gis na George bi ak uh, ki nga ki demal uh, lifin lañ naka jarbaat lañ o kooku dañu xam am mbokka mun nga fayal ne ñu ñu génnee George boobu andi keneen wala ñu def uh, change of venue loolu yëpp mun si waaye tamit tamit luwaa bi tamit laa koy seet as long as am na evidence am nga nit ki tamit fair trial bi fair trial bi yëpp mm-hmm. ñaaka am evidence bu correct la waaye soo amee evidence moom obviously Eh, this is a high profile case seen Sénégal ñu évidence bu nekk foofu noonu ñu gis ne kii deful dara ñu ne dañ koo teg si yoon si loo xam ne demut am nga loolu dem soo fee fee traite bi yëpp xeexee lu wax dafa am am nga yenn case yi mun nga koo suul mun nga nax nit ñi moo nekk yoo xam ne case nekkuñ kenn nekku di ko yëg waaye case yoo xam ne ñëpp ko yëg te ay sa proof ne mu am lawyer sénégalais bu dina dina am lawyer Gambia pour pour oversee Euh, lawyer Sénégal Sénégal euh, sénégalais pour mu nekk lead lead bi su ko defee gaa yi ñoo def hmm. loolu suma advice daal. all um, su fekkee ne am na anything si process bi nu moo demee maybe both here in the Gambia and Sénégal euh, li nga xamante ne li nga feel ne tey dafa important pour Gambien si bàyyi ko xel si process bi loolu lan lay doon lan nga bëgg a mun a teg tey ci loxo Gambien si wala li nga leen di mun a wax ñi nga xamante ne they are keenly xëy na am na interest ci process bi ñu ngi follow and equally maybe am concern uh, what any other important thing yi nga xamante ne mun nga leen ko wax pour xëy na ñu ñu ci ñu bàyyi ko xel tamit while process bi mu ngee mu ngi dem. waaw am na moo dañu ne loi. Mhm. Uh, code of law so da gis ne yow suñ la jàppee rek nekkuñ ne it doesn't mean it's the end of the war. Uh, police bi dafa uh, foofu la liggéeyam am so su nekkee agree loolu or obviously comme Gambia rek ngeen dem si court bi so at this point lu ma advise Gambian si nañ take some time nañ bàyyi lu nekk rek ñu fag ne waaw Sénégal li nii Gambia Sénégal because am na ni nga demee rek da ngaa taal dëkk anasa nga nañ bàyyi ba let's just say suñ demee ba gis ne process bi jeex na uh, Sénégalais yi you know ñoom xam nañ ni kii defu dara ñu boo ko teg si waaw we have every right to protect our fellow Gambians why, right now as as long as process baa ngay dal my advice to them mooy nañ tey ñu understand nga because ñii bu ñu doon jëflante kenn nekkul kenn gisul benn evidence ma gisuma evidence gisuloo evidence kenn xamul ne ay guilty na guilty wul loolu si dinga diggante code bu la uh, ak uh, ak ak ak moo la ñu ko yóbbu code pour moom pour moom opportunité pour defend boppam so we go from there and unless until you you give am na evidence na am evidence dañ war a tey nekkul case Isabe rek any other case even in Gambia, sir, nañ teg suñ because evidence of am um, it's not about what you know nit ki mun Mumore Nikwai Sokumunto proof in court, obviously, uh, uh document. So that, that brings me back to you this case ne ah kim xam naa ne moo ko def waaye code bu deful lii waaye because am na police officer you xam I mean, when they have mooy xam court process when they when they dee sabotage investigation because i am suñ yóbbu dara si court bi jooj bi du mun a complete kooku so like at this point daal they dañ to a dal ñu bàyyi court process bi yeah. su jeexee ñu seet lan la gaay di saay moo gën daal parce que yëpp amuñ njëriñ param param bi amuñ njëriñ dañoo ñëw taal di kër fii. all right xam uh, naa ne loolu is very very important nañ uh, topp process bi uh, dal bi nga wax léegi xam um, naa ne just one thing OIC bi jeex na comme niñ ko xamee of course but there's one important thing xëy na. comme ni nga ko waxee ak yow bëggoon nga koo highlight tuuti bi gas to xëj na gan yi waroon a ñëw ñëwuñ xam nga loolu na ñu may la opportunity bi pour nga indi sa leeral quickly rek. waaw jërëjëf ah, so based on our analysis xam nga comme dëkk yi su seen président dañu obviously dañu am advance team léegi-léegi gars ñu si dëkk bi sax yoo xam ñu si dëkk bi mm-hmm. so da ngaa gis ne ñu yaa ngi wax gars yi foog last last week sa ah, Mr Niang mu ko doon wax uh, fini nañ bàyyi di di yëfi di xaar di xaar understand so ñoom tamit dofuñ ñu ngi ñëw gis ne uh, building bi fuñ ne suñ ñu ñaa ñoom ñoo understand ñoom ñoom tamit ñu ngi gis ne building boobu noonu uh, ñu ko bil ñooñu tamit ñu ngi try pour donate uh, the world understand especially in Africa so da ngaa gis ne si building boobu noonu tamit li xew mooy xam nga ñun Gambie dañ foog ne si is just téye fetel param param non intelligence out there léegi dëkk yi doole ñëw si dëkk jàmbur pour pour spy sa waat yi da ngaa ñëw nax gars jox gars yi gesture like for example back in in the 80s in, in, in, in, in Russia so the new the the newly appointed ambassador bu mu demee foofu noonu dañ ko joxoon gift as a as a gesture of friendship waaye si gift boobu si seal boobu noonu gars yi ko defoon listening device so listening device boobu noonu ñu ngi ko def ci embassy bi for seven years gars yi gars ne Russians yi ñu doon déglu déglu gars yi seen seen seen secret yi foofu ñuy wax gaay yi aware of these gifts ñii tubaab bi ngi def andi si dëkk yi ñu ko jox ñu ko def si seen areas yi so likewise tamit uh, uh, building bii nii ña ñoo ko defal Chinese yi bagage yu fa nekk ña ñoo ko defal Chinese yi so te ñun Gambia dañ eh, war a understand even government buildings koo mm. build da nga wara am experts yo xam ñom ñoy xol bagage yu faa dugga from down from start to end because li xew am na yenn listening device yo dee am um, da nga ko mën a def ci ci si biir piis yi ak nga nga bilaale ko ci bir concrete yooyu yëpp dafay nekk soo camera yi caméra yi fa nekk tamit the same thing Because xamuloo ñooñu uh, uh, uh, like arab yi suñ ñëwee ñoom so if they don't have the opportunity to infiltrate them in their own country so gaa you see, dëkk bi ba leen boobu soo fa do they have do they am do they want like a connection from a connect to the Wi-Fi. So in the intelligence world, I'm not in a Wi-Fi. I'm not so connected. Mm-hmm. They will have access to your phone. Okay. So now in in that process, many legi Ah, su ne ku nekk am ngay def lu bon sa phone bi ah, ah, su nekkee yaa ngi def lu bon so suñ gisee dara sa phone mu ne ñëw mu ne ñëw use loolu noonu nga ñu dañuy la si loolu nga ñëw jaay sa so loolu yëpp si yëpp pipe si foofu noonu caméra yi lan lañ ko bilal so obviously for their security for their safety am nañ ne ku am ngay try hmm. pour def ni so duñ duñ most that's that could be a possibility so moo tax it's very important for us to start doing things for ourselves ñu am suñ own experts Lo xam ne mu ngee dem ci sensitive areas Lo loo ne mu ngee dem si loo xam ne nii ñu ngi ñëw suñu dëkk bi foofu suñu gars yi foofu la ñu nekk ñu jox ko Gambian si mm-hmm, mm-hmm. jox ko Gambian si ñu build ko te ñu make sure ne everything that that goes in that building no inspector. I'm, I'm not going to inspect it. am not, uh, there are some there's something called uh, RF detectors, radio frequency detectors. Now make sure and then radio frequency equipment nego follow and interfere actually network actually okay. or, or, or uh, internet. All right. Thank you. Thank you so much, uh, Morlami Chilera. I'm, I'm not, I, I, know we'll have more time because we are thinking of having a special review on the OIC generally. And of course, on that also, we'll have Nela Amyo on a general perspective on the entire event and uh, maybe the, some of the things we need to learn security-wise. But for now, Nyungla uh, Jaje for Bahaba. And thank you very much for, for your insight. Appreciate Nenko Bahaba. Thank you. Thank you. Oh. Uh, uh, Mr. Jeff, alright waaw léegi moom jàppal nga sama waay du la wax ne yaa ngi ko waa Mr Mbaye léegi nga ñang bi dugal ah thank you ML thank you for your time <laughs> alright jërëjëf alright appreciate it thank you uh, Modou Lamine Faye mu ngi ñoo koole uh, mu ngi ñoo uh, joine from America ñu ngi ko amoon ci line bi ci wax li nga xamante ne diggante Aïssa Fati doomi Gambie ak doomi Sénégal am na ki ma dox mu ne ma est-ce que fooguloo ne Aïssat boo xamoon ne mbir mi nii lay def kon du sëy rek sëy bi rek mu jeex ah. xam li ta dugg si sëy bi de waaye daal sëy bi yéeme na waaye ñu jaajëfal ko gis nga dafa moo xam si li nga wa dafa dafa am solo bu baax parce que balance na affaire yi ñun tam ñu xam naka lañ sëy ak na nga am nga first time mu xew wax naa leen ma ne ndax yoon dafa so loolu ku xam yoon mu ñu si mun a su fekkee yoon daf ko nangu jaar na yoon ba tam waxoon naa leen ne ak nu ta demee sa doomi réew ak nu mu munti demee su tooñee suñ ko tooñu da nga ko war a dimbali da nga ko war a taxaw waaw parce que loo waxuma la dara rek waaye loolu ñun sax suñ diine dañ ñu ko sant mm. prophète bi daf ñu ko sant mu ne suñ tooñee sa mbokk dimbale ko buñ ko tooñee dimbale ko dafa am mun ngaa taxaw laajte parce que mun ngaa wax ne ñun kuñ tooñ kay leen war a dimbale bu dee xeex nga dem xeex la ko waaye ku tooñ so loolu itam mu ngi fa soo ak nu munti demee nit da nga war a téye sa doomi réew ak any condition su bu mu munta nekk sa war ngaa nekk si gannaawam waaw def na lu dul yoon def la naka su dul yoon yëpp war na see war na fan naa ba léegi su comme suñu gaa yi silence bu nekkoon si noonu leen ko nekkee ba léegi waaw ñu ngi jaajëfal euh, Modou Lamine suma toomaa la sax de si si si jàngat bi am na solo bu baax su lu munta nekk laal na si si lu nekk si mbiri docteur si mm. këri docteur yi laal na si mbiri <laughs> kii naka la si Fati mm. Aïcha laal na tam si mbiri OIC bi ah, te lu la wax noonu is very important bu ko ah. léegi nii intelligence bi dafa àgg ak pexe yi ak xam-xam yi dafa yegg fu nga xam ne nit mun naa fixer la everything fekk mu ngi toog Japan di la xool moo contrôle everything moo control everything gars yooyu yëpp dañ koy soxraale yes te xëy na ñoo suñ gars duñ doon xalaat loolu yëpp yes So jëlee caméra yi Chinese yi ñoo ko fixe ñoo tabax building bi euh, am na sax ñi ma waxal ñu ne tooki ak nga ñoom président bi bëggoon naa ñëw waaye buñ ko gaa jékki-jékki rek fesal àdduna bi yëpp dafa war a Gambia Oh, mën naa am sax loolu lu ko loolu yooyu noonu yëpp yooyu yëpp is very mel ni ko Gambie xam nga ne mhm. yow tey doole soo ñoom xëj na de buy ñëw sax dañ doon jékki-jékki ñu gis ko action te xam nga boo la lu mu la wax is true because time foofu there's a time gis naa ne rek soo fa demee mhm. even pour nga am connexion boo duggee si wàll dootoo ko mën a te am léegi nag yow wifi bi nga connect ndax boobu tam nekkul lu mu la wax ni ku am maanaam ku xelam màcc si mbir xam-xam la la nekk di wax da nga koy déglu nga nga xam-xamam lu ma bu ko lu mun a nekk la nga DRC time amoon leen fii time yi nu mu tuddaati nawet amoon nañ fi MSG MSG fanaana français gars yi français la noonu dina woon na ñu ne ñi soo fayee seen bill bi daanaka France la xaalis bi di dem something like that mm-hmm. because nit ñi doon nañ dégg coow yu mel noonu rumus yu mel noonu amoon na si ne seen everything mu ngi ñoom ñu ngi fii mm-hmm. waaye France leen day defaree seen everything transaction si waaw bill yi ngay fay ak yëpp suñ la buggee doog ak nangam nangam yëpp xam nga yàggu yàgguñ fi nag MSD yàgguñ fi waaye ñëwoon nañ nawet bu ko ñu ngi laa won ne ñoom bi ñu ñëwee fan naa ji si leen ji replace doxalin bi xëy na moo la neexul ñoom ñu defar seen système bu nga xam ne nii sa paiement bi yëpp daanaka luñ fi liggéey ñu nekk dañu dee xam France dañu dee xam ne mais bi sa mun nañ koo jot direct nit ñaa ngi doon indi ruumi si mel noonu soo mooy lu mu laa wax ne rek adduna bi dafa toll fu nga xam ne nii pexe yi den bëri moo tax lu si nekk da ngay fexe nga defal ko sa bopp xam nga tey amul yéen yi comme to sécurité tey tey am na si ma jël exemple Pathé mu nekk West Coast Pathé moo la gën a xam Johnson Latymer bi lan la fa soxla bu fekkee mu ngee tere ku dem jàmbur waaye loolu ndax tubaab bu nekk jàmmoon mun na la koo jàngal mun na la ko jàngal soo moo tax it suñ sécurité dafa baax pour suñ koto yi suñ police keebaay mag ñi ñu ñëw parce que ñoo ñoo la mun a xam boo buggee stop ku dem jàmbur ban ban raw na raw na baa nga koy stoppé si jon si jaamangaay wéy bi soo naka nga koy duggee yu nooy demee yu na yooyu soo loolu jaaman mënul la ko jàngal américain mënul la ko ñu ñoo la ko mën a jàngal soo moo tax seen si ñoom seen training mm-hmm. pour ñu ñëw train suñ suñ suñ nit ñi mm-hmm. police keebaa yooyu noonu ak ñu yàgg yooyu noonu dafa important waaw waaw Mr Phone ñu ngi ko nuyu bu baax waaw paate tam paate sax euh, paate tudd naa ko sax ñu ngi ko nuyu den mu ngi am promotion I think usine usine Bañ. ay think waaw Paate Diallo gos ku ñu ko congratulé ba pare ku ku xam liggéeyam la exemple la si si police Gambian police force ci ci man management wala crowd control. crowd loolu yàlla daf ko si may. bu ko lan dara nag amul mooy ànd a xelam. wàccee boppam. Mm, waaw ba pare fu mu jiite xale yi dinañ ko ñeme. moom laa la wax moom laa gis sax junni am mbubam bi taxaw suuf mu oo ko ba mu ñëw mu fombal ko ko. defaral ko everything su doon ñeneen dañ koo ne. waaye yu weer dis. kon doon demee noonu waaw waaw waaw jërëjëf. yes su ko defee dañuy dañoo jaajëfalaat moo Lamine bu baax baax ci intervention bi ak as always. Euh,